asalaamaaleykum ñaanan la la jàmm yow mi ñuy topp ci sunu calale giir xalam noo ngi woon ci physique chimie muy PC waaye nekkoon di la indil genn wàll ci mbëj muy électricité indiloon nan la nag àlluwa ci jant muy tableau solaire ana nees koy defare biir yi nga xam ne ñoo ko war a toggale ak mool bi nga xam ne mooy mool jëmm ji ñu indiloon la ci yi toggalee tegale bi mu doonoon juróom benn bi ci njëkk di ab cadre te muy li nga xam ni mooy ŋànk mboolem tegale yi àlluwa ji ñu indi la it ab weer weer bi di ñaareelu tegale bi waaye di bokk ci biir cadre bi ñu tegal la ci lëmasu plastique koo xam ni mooy dox diggante weer bi ak kallentaan yu mbanjaxe yi muy silicium bi ginnaaw bu lëmasu plastique juróom rombee ba lëmasu kallentaan yi topp ci geneen lëmasu plastique moo ci leruwaat muy ñaari lëmësi plastique yu séq kallentaan yu silicium yi ci ginnaaw nag la génn lal teg di tege foofa it la xott wa yor a xàjjale ba di daje wala di nekk leeral gi ñu lay indil nag ginnaaw ba ñu la indilee leeral ca wopp bu jiitu ñeel yeneen yi toggale àlluwa ji muy tableau solaire bi ci boppam dañu lay bëgg indil ak leeral gu gën a leer jëm ci tegale bi nga xam ni moo waral mbir mi te muy tegale kallentaan yi muy cellules yi muy li nga xam ni moom mooy muucu kàttan yi jëlee ko ci jant bi di ko jox yeneen wàll yi ngir nit ki mën a am dawaan muy courant lëmas ki nga xam ne moo boole kallentaan yu silicium yi wax nañu ni la silicium benn la ci mbanjixit yi maanaam ci matière yi nga xam ne ci suuf si lay jóge waaye daan nekk yu jëmtalu ci mën a téngatu ay dawaan muy courant waaye nag daa am nu nu koy defe noo xam ne moo koy may saa soo xamee ni ceeñeeru jant bi dal na ci kawam mu mën a yàbbi dawaan yu courant am na nag ay maas yu bari te wuute diis na la ci dikkal waaye duñu la bëgg indil ak leeral sew-sew bi fan la nekk ba nga xam ni tegale boobu di demee ba soo amoon mbanjaxe yi muy matières yi ak jumtukaay yi nga mën koo defaral sa bopp tegale bu sew ruuj lang lay nekk boo xam ne day def ñetti teles yu sew a sew a sew waaye téerewut dinañ ci mën a boole mboolem yi mu war a àndal ñetti tegale yi benn bi muy féete kaw benn bi nekk ci diggante bi muy xàjjale bi moom na muy gën a beneen bi féete suuf ngir nag xaral ak njuree fi dawaan yi mën a am daa am looy nand ba noppi te mooy bu dee liis di wax mbëjëntaani muy électron yi ngir ñu mën a juddu wala ngir ñu mën a tuxalu ngir ñu mën a daw bay tuur dawaan te muy courant daa am nees leen di riimale wala nees leen di nose dolli gi moo fi yore maanaam lu soxla ndolleen te mooy moyen wàññi gi muy moye bi moo fi yore maanaam lu yore lu ëpp ba bëgg ku mu ci niiral gu njëkk ñu di la xamal it ni dolli dañu yore maanaam dolli maanaam plus dañu yore maanaam di yàb bi ay gil ay giil wala wàññi bi ci boppam muy moyen bi yore maanaam wàññi di tëngatu ay giil waaye bu dee fii ci leeral gii nii moyen bi day mel ni day yore maanaam ku soxlaa wàññi doll bi te mooy plus bi mel ni ku yore maanaam ku soxlaa yokk wala ku ko yokk moom silicium nag dafa am jagleel yi këriñal xariiful te muy atom yi nga xam ne ñoo ko toggale di làmboo ñeenti mbëjëntaan maanaam ñeenti électron yoo xam ne bu ñu ko ngoojee ak yeneen yu mu bokkalul maanaam yeneeni i yeneeni xariful mu yeneeni atom yu beneen mbànjaxe te mooy phosphore ak boor su boobaa leneen day xew te mooy jëng jëm ci ak mànd xew àlluw ji nag ñaari tegale yi ñooy nekk li làmboo mbir mi li ci des moom ab xàjjale lay nekk te mooy li dox diggante ñaari tegale bi ci kaw moom lay tudde tegale bi wàññi muy couche négative bi ci suuf moom lay tudde bi yokk muy couche positive léegi ci xaaju kaw bi nag bu ñu ci dollee xariful yu phosphore muy atom yu phosphore atome yu phosphore moomu li mu ay mbëjjantaanam muy ay électron day nekk juróomi mbëjjantaan ci jamono ji nga xamee ni fekk na xariful yu silicium yi maanaam atom yu silicium yi nekk ñeenti mbëjjantaan donc su boobaa nag moom phosphore day taxaw taxawaayu ndollan maanaam day nekk dolli maanaam xariful buy dolli plus muy positif suñu ko jëlee nag moom phosphore daal di koy ngooj gand ko maanaam jaxase ko ci mbanjaxit yu silicium yi maanaam ci matière bu silicium bi su booba loolu la ñuy wax doppage muy ngooj ngooj gin ko fi ngooj nag day nekkaat ak toggale guy juraat yeneen njuréef yu bokkul ak yamu mbindare woon ci tegale suuf bi nag muy couche p muy lëmës gu dolli gi la mësu dolli gi moom la ñuy ngoojal maam moom la joppe ay xariful yu boor te xariful boor moom moo ngi yore ñetti mbëjëntaan muy trois électrons kon moom daa wàññi maanaam dafa négative mët liwut li yeneen yi matle su loolu amee nag mbëjëntaan yi muy électrons yi ñoom ñi nga xam ne ñoo yore kattan yi muy énergie bi dañuy bëgg a jóge ca fa doyle jëm fa nga xam ni doy toxalu wut gi ñu tuxalu nag war a jóge fee jëm fee wanante ginnaaw loolu mooy jur benn jiil bu mbëj ñu di ko tuddee champ électrique ci diggante ñaari tegale yi muy fi xàjjale bi nekk li ko waral mooy toxalu gi nga xam ni mbëjantaani ñoo ngi koy jóge ci tegaleb kaw bi jëm ci tegaleb suuf bi maanaam ci lëmës na muy lëmës gu wàññi gi muy couche négative jëm ci lëmës gu yokk gi muy couche positive su ko defee it lëmës bu suuf bi moom it bëgg a fekki lëmës bu kaw ba su boobaa nag kàttan gi day daal jël seen saaw def lu wurngalu di romb di dem ak a dikk kon lii dong la ginnaaw loolu nag am na yeneeni biir yoo xam ni amaan na te mooy jëmmi defar gi yile àlluwa daa am ak yokkute jóge ci maas gu njëkk ñaareelu maas ba ci ñetteelu maas maas yu àlluway jant yi wala àlluwaj jant muy tableau solaire maas gu njëkk gi muy première génération ay kallentaanam mu ngi doon nekk kallentaan yu cristalline muy cellule cristalline ci leen ko doon liggéey ñaareelu masse gi ñu ko doon amale ci lëmës gu sew ñu di ko tuddee thin films ñetteelu masse gi muy perovskite nekk lu limoy xajjale muy multijonction nekk it lu kakke muy lu am concentration dëgër ñoom ñi ñëpp nag ni ñu leen amale mooy soppeeku ci dolli kattan yi ba mu gën a xarala ak ni muy juree ay dawaan ngir mu gën a limu te gën a lotaabewu yooyu coppat moo ci xew waaye li ci mën di am ñoom kallentaan yu dawaani kuraŋ yi wala mani dawaani jant yi muy courant photovoltaïque wala énergie photovoltaïque wala effet photovoltaïque ñoom ñëpp dañuy juddoo ci suñu gaarloo ci jant bi wax nañ la nag nii la bi ëpp lu ñuy jëfandikoo mooy silicium muy Si waaye nag des na jëfandikoo yeneen ci masse yu mujj yi bokk na ca lu mel ni ki sulfure de cadmium muy CDS sulfure de cadmium ak tellure de cadmium muy CDTE tellure de cadmium ak ay lënkalika yu përëm indignum muy cuivre indignum ak sélénium muy CIS mas gu njëkk gi muy première génération ñu ci doon amal ñoo kon amalee ci kalentaan yu cristalline muy cellule cristalline nga xam ni yu ëpp ñoo koy defaree ci silicium waaye benn xajale dong lay doon am muy jonction PN xaral ak lotaa bég ay kalentaanam moo ngi doon sampee ci njurée fi wafeers ñu koy bind W A F E R muy W wala ERC di bawoo ci silicium bu cosaanee muy silicium pur nek bu njakattan muy li ñu tuddee énergivore waaye it nek bu doon njëgu muy bu coûteuse. ay njureefam doon mën a ci lu gën bari mbaa lu gën a néew ñaar fukk ak juróom-ñaar ci téeméer am na nag. ñaati xeeti ñaari xeeti kalentaan yu cristalline muy deux types de cellules cristallines bi ci njëkk moom lañu tuddee kallentaan yu polycristalline muy les cellules polycristalline beneen bi ñu di ko tuddee les cellules monocristalline muy kallentaan yu monocristalline bu njëkk bi di bi ëpp jagleeli xareeful yu cristalline ñu yatt ko yatt yu teles mu nekk lu dëgër waaye nag moom ay jafe-jafeem mooy su keñeer gi néewee doole dafay daal di tàmbali di néew doole bu dee kallentaan yu monocristalline yi nag ñoo ngi tabaxoo ci cristalline bu cosaane muy cristaux très pur nekk bu dang ci silicium ginnaaw masse bu njëkk masse bu ñaareel moo ci topp muy deuxième génération nekk ay allo yu ñuy liggéey ci lëmës yu telesu muy ay couche mince ñu di ko wax thin film bu dee ñaareelu mas gi nag la mësam gu telesu gi muy couche bu mes bi nga xam ni mooy janoog ceeñeer gi muy semi-conducteur bi daa mën a jonjoo ak coppati njuux mi ñu di ko mooñe ci silicium amorphe muy A tiré Si muy silicium silicium bu nu cristallisé wul aw wirgoom nekk gris foncé ñu tàbbal ci tellure de cadmium muy CdT ak disélium de cuivre ñëm muy CIS te mooy ñooy xaral yi gën a ràññeeku wala biir yi gën a ràññeeku ci li toggale njiska yu montre yi woon wala calculatrice yi muy limukaay yi te itam day liggéey bu keñeer gi bare ak mu néewee yépp day am kàttan coppeeku njox li muy température bi wala boo climat bi ak yëgóor yi te muy température bi température bi ak kër yeeg niir yi du ko teree mën a jot ay kattan waaye nag ay jafe-jafe mooy bu nu boolee mbooleem ay njuréefam du nekk yu am solo su dee ceeñeer gu jonjo itam muy éclairement direct du am kattan gu am solo a jagleelam itam day wàññeeku ànd ak jamono ji ci anam gu boytalu bu dee ñetteelu masque yi muy troisième génération muy perovskite multijonction concentration moom daa doon ak cuqali bu làmboo wala bu aju ci ay gis yu gën a yaatu ak ci wàll yu gëna yaatu te gën a limu ndax kalentaan yu perovskite yi ay kalentaan lan yu toggaloo ci ay bennat hybride organique inorganique maanaam élément hybride organique inorganique moom nag moo gën xarala yi ko jiitu waaye ay njuréefam ñoo gën a néew jafe-jafe bi ñu nekk nag mooy daa ci mën a janoo ak ndox naka noonu yëgoor yi muy température waaye nag terewul ba léegi gëstu yaa ngi ci dox ci di ko yaatal moom na ay kalantaanam moo ngi nekk ay limuy lëmës muy multicouche yu dëppaloo muy superposé lamboo it ay jagle yu wuute lamboo it ay kàttan yu wuute loolu li ko may muy mën a rungat yu bari yuy bawoo ci jant bi kalentaan yu kàkk yi mu làmbool muy cellule concentration cellule à concentration moo koy may mu mën a dékku yi mu tegu ci kàttan yi nga xam ni ñoom lay muccu jare ko ci ay kalentaanam muy ay cellulam saa su mu làmboo it ay kalentaan yu cere muy liñ tuddee cellule organique kon lii lañu leen doon indi ci lu jëm ci àlluwa ju jant muy tableau solaire mi nga xam ni benn la ci balluwaayi kàttan yées di yeesal muy énergie renouvelable boo bëggee lu gën a yaatu ci xeeti kàttan yi ak xam-xam bii di physique-chimie ak xam toog gii ni mel topp nu sunu càllale gii di xalam bëggal càllale gi muy bindul muy sabone te bés ci tuqal yi muy sonnerie bi danga jot ndéem soob na borom mboolem yi tàbbi ci kër gi jaa